mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am أما والذي أعلى على قلق رسلها أما والذي أعلى على الخلق رسله لأعلى عليهم آج معين مهله فأصبح لا مخلوق يقصر فضله يقر له بالفضل من كان قبله من الرسل إلهاما من الله أو وحيا اللهم صل على محمد سليم سلام وسلم المتابعين رسول تزيى بالله البدائل بذاتا رسول تزيا بالفدائل بذاتا حمال دون ودي نزاتا وحوزة يقف تياحا للسماء وحزة يقصر عنه الناس منر عزة ولو أن ذا أعيا ولو أن ذا أعيا اللهم صل على

يفيد جداهما له راحة خير يفيد جداهما ندى وهدى الأحياء قلوب سداهما فلا مدرك في قاس لدين مداهما يدعو غمام أو سباه كلاهما فقد نقع الأزمة أو أن تنقذ العمياء اللهم

الإله وكم غدا فكم رافزة الإله وكم غدا يقود من استعصى ويقمع من عدا يحاذر منه الباء سيلتم سندا يهاب ولا ليس عرين إذا بدا ويرجى ولا خيس غمام إذا أحيا اللهم صل صل على محمد البصر وصفي المصطفى يريه من البلوى يذيق عن الردى يريه من البلوى يريه عن الردى يدل على التقوى يسوق إلى الهدى يطب من السقوى يسول على العدا يفوق الورى ذاتا ويسبقهم مدى ويبرهم نورا ويفضلهم زيا اللهم صل على محمد زهر المسلم وتبع المسلم بالمعزل إذا المرء لم يستحق من الدر من قزا إذا المرء لم يستاء من الدر من قزا ولا به من باء فيه وتعودا أصاب مجيرا من هذا الدهر منخذا يجود بلا من ويقضي بلا أذى ولله ما أحباه ولله ما أحيا اللهم صل على قدم درهد قد داوى معرة فكم ترهة قد زاد ومارة ومن فرهة قد قادها ومشرة وكم بسطت منه لدى كل أسرة يمين والد تنور أسرة فأهلا وسهلا بالصباح وبسقيا اللهم صل على Valeu! مدح فيه كالمسك يقبغى فلله مدح فيه كالمسك يقبغى ينير به فكر ويغضب منطقا ولله صدر منه بالعلم مسرق يرى ما وراء الغيب والجفن مدرق فلا عجب فالقلب ممتلئ الوعيان اللهم صل على محمد سيد البشر وصدق المصطفى في المعاصي وادم بأمر الموت تبع وبسانه فاعزم بأمر الموت تبع وبسانه يفيد الهدى من قلبه ولسانه يعرفه بسيء ودون عباده يقين يريه الأمر قبل كيانه فيمضي على تقيه الأمر والنحيان اللهم قد ندى دينا له وسجية أتى بالهدى قولا وفعلا ونية وفي كل بئر فاتقدها قدية يريد على كل الأنام مزية فقدمه إجماعا عليهم بلا سنيا اللهم صل على محمد

بناها جليل الخار من آل هاشم يلوذ به في الحاسر أبناء آدم ويوثقهم برا ويحسبهم رعيا اللهم صل على محمد سيد كفور وملحد سوى مفرده من كفور وملحد فهم للردى والبوس في اليوم والغد fa naxnu bi hamdillahi fi kulli mashhadi yaqina rada wal bu sa hubba muhammadi falasna naqafu da razlan wala baxya allahumma salli ala muhammadin دعانا لمولانا وحسن ثوابه وذكرنا بالخير وهو لما به فما زال في الدنيا وعند مآبه ينيخ أولو الآفات ترا ببابه فيلقون أمنا في الممات وفي المحيا اللهم صل على محمد سر البشر وزبع المزبع لنا رغبة فيه تشاب بهيبة لنا رغبة فيه تصاب بهيبة ورب حضور في المواتن خيبة ومهما رجونا فل هم بهد خيبة يهب علينا الروح من أرض طيبة فنحتز للقيا ونقنع بالرياء اللهم صل على محمد Tuubaa وودها إلى الله يسكب قلبي وودها لبعد حبيب الله أساقت بعدها منايا من الدارين لقياه وحده يضيق مداق صبري عنه وبعده وعلي لف الأزمة أمن يبتغي الرياء اللهم صل على محمد وسبح المسقين في المعسكر إلى الله أسكب بأس قلبي وودها إلى الله أسكب بأس قلبي وودها لبعد حبيب الله أساقة بعده من الدارين من من الدارين لقياه وحده يضيق رداق الصبر عنه وبعده وهل يلف الأزمة أمن يبتغي الرياء اللهم صل على محمد سيد البشر القرآن وجه قد ضل بشره فلله منه الوجه قد ضل بشره على ما هوى من رحمة الخلق صدره ولله منه الوجه فقد فاه نشره يتيب على طول التعود ذكره فنتقه مسكا ونتأمه أريا الله اللهم صل على محمد سيد البشر ولله منه العطف وسماؤه ولله منه الآتفه وسماؤه ولله نوم قد نفع اتزاؤه سيء مليء جيده ومزاؤه يؤذ قلوب المؤمنين امتداؤه فرزنا تياقا لا نموت ولا نحيا اللهم صل على محمد وقد مسنا طول اليوم الفراق بنصبه لقد مسنا طول الفراق بنصبه فصرنا نحب الموت طبيقا بكربه فيا ليتنا منا كراما بحبه يسير علينا الموت في جنب قربه فمن قصد المحبوب ولم يسأل البخيا اللهم صل على محمد البصير ربنا في الأرض وسمائه فيا ربنا في آله وسمائه أمتنا على تصديقنا بصفائه فإن وذو الأسواق يحيى بدائه يسوق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد الرسول ربنا في آله وسمائه فيا ربنا في آله وسمائه أمنا على تصديقنا بصفائه فإنه الأشواق يحيى بدائه يسق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر أرضه وسمائه فيا ربنا في الأرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا بصفائه ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فإنا وذو الأسواق يحيى بدائه ربنا في أرضه وسمائه يسوق علينا العيش دون لقائه يا ربنا في أرضه وسمائه ويا ربنا في أرضه وسمائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا استبدل لم يكمل فلا كانت الدنيا استبدل لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت في الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدين لم يكن فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا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 wasalaamu ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin di déwén ci barke bi sallallahu bu rëy rëy rëy rëy macha allah ci tëj bii nga xamante ni mooy Hilmul Hayb keroog bi weer wi teroo ñu door ko ci bayit bi njëkk muy xalila yaa ujabil muhasabi wanzila wala tabriya an xayfihi mutahawalan ba tey jii yàlla dogal ñu wàcce téere bi ci jàmm ak salaam kon dañ ciy sant suñu borom subhanahu wa taala eh, dafa am loo xam ni ku ko am sant yàlla rek mooy war te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko bind lépp di ko lépp di ko tiitaroo bi ko sama borom bi amalee lépp di ko tiitaroo mu ñëw bokk ci doomu aadama doomu aadama am beneen tiitar ci biir ci biir ci biir ci biir ak bokkam ak yonent yàlla Muhammad parce que sama borom bi mu yëkkatee nii walla xadd karam na lépp lu yàlla bind amal ko nga xamante ni yàlla lim amal ci àdduna lépp ko déggal te di ko jaamu garab yii sama borom nee na amul genn garab gooy gis mu yëngatu te nekkul ni day sàbbal boromam borom in mooy sa wax na ko mu nii da ngay tagg yonte yàlla Muhammad ba mel ni ay garab di jaayu ba mel ni ay garab moo tax léeg-léeg nga gis ñuy jàng ibnu mohib nga gis leen ñuy jaayu di dem ak ñëw di jaay dama ko ñëw wala mooy ni kan fa fa naxtazu kal aqsaani ma saratibuha mu ni dañu dinañu bàkk yonent yàlla Muhammad seen yaram di yëg ak jaayu di dem ak ñëw mel ni ay garab yuy jaayu bu ko ngelaw di di bu dem ak ñëw loolu la koy waral mooy seen cofeel ci yonent yàlla Muhammad parce que ña ngay duy di jaayu di duy di jaayu di duy di jaayu di rot ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu loolu mbégte la mag ñi dañoo amoon mbaax te dañoo amoon gis-gis téere bii di ibnu muhayib moo nekkoon seen lépp yàlla sama borom subhaanahu wa bi mu nee wala xadd karam na lépp lu mu bind dafa taxaw daal di manifesté wu lu ne jàpp ni moom la yàlla di waxal parce que yàlla nee na law anzalna hada al quran ala jabalin araaytuhu qaasian mutasaddiqan min mutasaddian min xashyatillah wa tilka al amthaalu nadribuha linnaas laallahum yatafakkaruun nee na sama alquran jii de su ma ko wàcce woon ci ay doj di ngeen gis doj yi di toroxlu di mokk di mokk rumux ci kanamu seen borom ci toroxlu ngir ragal guñ ma ragal kon xam nga ne doj yi sax am nañu ak ragal yàlla yàlla waxaat ci biir alquran ni amul lenn looy gis illaa yusabbihu bi xam hamdi lu dul ni mi ngi may sabbal moom loola muy garab yeeg loo gis lu ne mi ngi tudd boromam eh, loolu yëpp am lu ci ne déggal boromam nga xool malaayika la yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun duñ mooy yàlla mukk ci leeru yàlla rek lañuy ñuy dund ak li leen yàlla di digal ñu nekk ci di ci dox ñooñu duñ mooy borom bi mukk ñoom ñoom malayka ñoom ñëpp nag yàlla yëkkati kàddu nii dama teral lépp manifesté wu ni man la yàllay wax yàlla daal di jéggi lépp daal ni ban nii aadama laqad karam na lépp yékkati loxo yàlla daal ni lépp wàcc yàlla ni ban nii aadama teral naa doomu aadama yow nga ñëw sant sa borom nag ci bokk gi nga bokk loolu ci biir doomu adama googu nga xam ne yàlla da koo teral bokk gi nga ci bokk nga sant ci yàlla ci biir bokk gi yàlla di waat ci biir mbokk gi dama yónni ay xeet xeet yooyu xeet bi mu ci gënal mooy xeet bi nga xamante ni moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bokk waaw xeet bi nga xamante ni ci la Seydina Muhammad bokk xeet woowu moom ma ci gënal parce que ki ma gënal ci xeet woow la nekk mooy xabibullah mooy yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñun ñu ñëw bokk ci boobu xeet bokk ci nag biñ ci bokkee ba pare ñu amaat beneen sens ci biir bokk giñ ci bokk mooy ñu nekk ay jullit bëgg yontu yàlla muhammad te yàlla nee na moom mooy ihdina siraatal mustaqim te yàlla nee na moom mooy wa in tuti'uhu tahtadu ku ko topp jub ku ko topp gindeeku moom seydina muhammad moo tax borom yi mu waxee dafa wax ni si so yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fadaynaahu bil arwaxi law kaana yuftada bu doonoon koo xamante ni bi mu bëggee dem yàlla day laaj ay ruu pour ruu yi remplacer yontu yàlla Muhammad yontu yàlla des fi du dem kon nee na yonentu bi du dem suñu ruu yi la jël jox ko suñu borom mu yóbbu suñu ruu yi bàyyi fi ruu yontu yàlla Muhammad kon yonentu bi du faatu mukk ci zaahir ci ci ci ci zaahir ndax yonentu bi du faatu waaw yàllaa ko wax oh, wa ammaa maa yanfa'u naas fa yamkuth fil ard comme comme nag ki nga xamante ni day jariñ nit yàlla da fiy saxal te yonent yàlla Muhammad moom njëriñam mooy moo moom mooy àdduna ak alaxira maanaam moom moo jëriñ lépp shafiul wara ki nga xamante ni mooy ramm jaami bu ñu ko waxee du nekk nekkul ni rek dalay ramu fii ci dalay ramu ci alaxira rek bàyyi àdduna yonent bi moo ramm àdduna ya ramm te rammuk àddunaam ak alaxira leer na ci lii xoolal yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak rammuk àddunaam alaxira leer na ci biir ak ci biti góor xoolal bi borom im mooy booy naan xaraj naa bihi min kulli diqin wa xummatin daxal naa bihi fi dilli amnin wa wa ismatin atat naa bihi lillahi asbaa nimatin borom im mooy ba muy wax loolu yonent yàlla Muhammad moo taxoon yonent yàlla Muhammad dafa ñëw fekk ñu ci xat xataay gu metti xataay gu tar xataay gu jéggi dayoo mu génn ñu ci xat googu dugal ñu ci yaataa yaatu yaatu yaatu yaatuwaay place bu yaatu mu ñëw fekk ñu ci njàqare ma ni la ku ku ku ku ku ku ku jug rek tiit maanaam jàpp ne ngir fii doo fi yekkee sa nakk maa ngi koy wax keroog fii si jàkk ji man leen yonentu Yàlla Muhammad njàqare gim ñu jële doy na ci preuve kenn daawul nangoo am doom ju jigéen ba génn ci mbedd mi ni sama jabar sama soxna jabar doom ju jigéen la am boo daan am doom ji jigéen pression ngay am pression da ngay tiit ndax boo ko waxee ci biti rek gaa yi dal ci ko waaye yow si jëm bopp gaa yi del sa kaw loolu moo amoon la njëkk yonent Yàlla Muhammad Seydina Omar kere wax naa ko fii si jàkk nee naa leen Seydina Omar bokk na ci ñaar yi ko gënoon a ko gënoon metti mu koy xalaat te saa yi ko xalaatee mu sori ci moom lool ci aw metti ci jamonoy jaahiliya muy yàlla ji mu yoroon di gato te bu xiifee lekk ak doomam ji nga xamante ni dafa ànd ak moom ba ci àll ba mu sul ko di doom ji jigéen wala sa doom ji jigéen nga bëgg ko lool am ci moom cofeel doom ju jigéen boo ko amee ni mu lay bëggee doom ju góor sax du la ko bëggee nga am ko muy sa doom ju jigéen nga ni ko dama lay yóbbu sa kër bàjjen nga seeti ko solal ko robb ba mu gën a bëgg mu mu mu féex bëgg am mbégte ni tey damay ànd ak sama papa di génn dem sama bàjjen nga jël ko teg ko ci sa warwaay yéen ñaan ngeen ànd di dem di dem di dem fekk teg nga sa plan ba gas sa pax mu xóot ñëw ba ci pax mi nga waddal sa dàll daan ni daan ni ko ci cofeel ci cofeelu baay ak doom ni ko jox ma dàll bi mu ni ci rax ci biir pax mi yëkkati dàll bi yor la ko jox la ko ba mu ne ba mu ne la ko nii jox la ko ci sa ci sa loxo nga jël dàll bi teg commencé di suul moom jox na la loxo pour nga xëcc ko mu génn nga commencé di suul a Omar nee na may suul di suul di suul ba ci wóomi di suul di suul di suul ba ci ndigg li mu naan ab abi abi jox ma loxo bi rek pour ma may ko loxo mu génn mu naan ma abi abi te sama doom la maa ko jur mu tàllal ma loxo bi rek góor a naan abi yi mooy sama baay papa papa papa papa ngay suul mu naan papp ngay suul mu naan papa ngay suul mu naan papa suy naaw ma nee na mooy suul ba ci ndigg li mu naan papa mooy suul ba ci biir bi mu naan papp mooy suul ba ci weeni mu naan papa may suul ba ci mbagg yi mu tàllal ma loxo bi rek danaan papa di am yaakaar ni sama papa day kaf ak man damay xëcc ma génn nee na mooy suul ba mu yegg si fi bakkan bi toll muy noyyi te gisat suuf suuf si suuf si suuf si jóg mu tàll ma loxo mu tàllal ma loxo te mënatul wax may suur ba gisatuma bopp mu bàyyi ko fa xoolal deegu metti googu ci doom ji nga jural sa bopp di jigéen loolu metti na nee na loolu fu ma ko xalaatee ci jamonoy jaahiliya rek du ma xam ci lu ma nekk ak yàlla ji nga xamante ni dama ko téye sama loxo ni mooy sama yàlla te bu ma xiifee jël ci dagg ci ab ban dagg ci ab tànk su xiif yu gën a yokk ma daggaat ab loxo ba ni yàlla ji jeexee noonu laa koy jëlee di ko lekk muy sama gatu nee na lii ki ma ci génne mooy Seydina Muhammad nee na bi mu ñëwee moo moo rëpp replay xaw ma nu ko waxee replay ni ko français waxee moo retourné affaire bi xaraj naa bihi min kulli diqin wa xummati moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam bara in mohe ni badaawa bi qaawal ardu zulmun wa zulmatun fa asraqatil arja wan qasaxal karbu nee in mohim Mohamed Diallo si nii bara in mohim nee na yonent bi muy ñëw ak njaay àll la fekkoon ku man sa morom duma ay ngi dégg de mu ne ku man sa morom duma la fi fekkoon da gis koo xamante ni day ñëw bu ëppee kii doole daat koy duma ba bëgg dee bu ko neexee sax jël soxnaam dem amul lu dagan amul lenn loo xamante ni daal lu ñuy teg ay condition la yéen di sallallahu alayhi moo ñëw sama borom wàcceel ko alquran ni ko alquran jii nag laa la indil muy ay règlement yu wér condition yu wér ak ci jaam yi am réew boo ko bëggee doxal day man la day am ay règlement intérieur xaw ma règlement ne xaw am ay charte waaw day am yoo xamante ni lii mooy mooy mooy gouverner état boobu la ko sama borom subhanahu wa indil mu nekk état bu civilisé mu nekk loo xamante ni ba tey jii képp ku ci attewoo doo jum mukk li fi sama borom subhanahu wa taala bàyyil yonent yàlla Muhammad yonent bi ñëw bi mu ñëwee indi leer goo xamante ni leer gi ba fii mu ne li ma ni day leeral àdduna di leeral alaxira ci leeruk alaxira gi rek ci la ci la Seydina Omar amee loolu mu am ci la ñun ñii ñu amee lii ñu am feex gii ñu am ba tey jii ñun ñëpp ku ci nekk xam ne yaa ngi sa liberté toog di am sa julli di ñëw parce que yonent bi sallallahu bi mu ñëwee sahaaba yi dañ koo jàppale mu xeex ak yéefar yi ndax ñoom li doon seen li doonoon seen bëgg-bëgg mooy ñu moom kaaba gi la fa ne ñu nekk fa di fa teg ay xërëm lu ne ñu di ko fa teg keroog boo ko sama borom subhanahu wa taala joxee ndigal pour mu dem ñu toj xërëm yi ca Kaaba ga Seydina Ali nee na yàllaa ngi wax naan qul jaa al xaq wa zaqa al batil inna al batila kaana zahuqa nee na ñu ngi jël jaas yi yàlla seen yàlla yi ni mu gën a ngandee te gën a kawe la ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tungoom te nee na yonent bi sallallahu boo ko doon gis da nga ne amul doole mais nee bu ne ma ces rek day mel ni damay laal asamaan juróom-ñaar nee na fu yàlla fu ab yàlla nekk ñu tabax ko bu ma nee tëll rek yàlla ji wadd ñuy toj di toj di toj di toj di toj ba dëgg sax biir màkkatal mukarama loolu booy xool télé bi rek nga xam ne yàlla rek mooy dëgg rek mooy dëgg ngay xool tele bi nit ñi di wër naan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wa ni'ma lakk wa wal mulk innal hamda wal mulk lakk ñuy wër kaaba gi di yuuxu baat boobu di ko wax mu ne la fii xoolal ay jamono ni mu meloon yonentu bi ñëw raxas ko ba mu set tey ji mu indi fa dëgg yàlla ne qul jaa al xaq wa zaaqal batil inna al batila moo tax kooku moo yeyoo lépp moom Seydina Muhammad parce que moom moom lépp lépp daa bàyyee ko woon ci moom nee naa yàlla naru woon a amal jaam yi luy bokkul woon ci loo xam yàlla ci bopp mu génn leeru yonent yàlla Muhammad xaaj ko bind ci àjjana bind ci safara bind ci aras bind ci kursiyu bind ci nit bind ci jinne bind ci asamaan bind ci suuf yii yëpp ci leeru yonent yàlla Muhammad la ko sama borom amale moo tax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam maanaam nit lenn la rek ci lim amal ci li tax mu am nit lenn la ci li tax yonent bi am moo tax maa ngi wax que man leen maam aadama ci boppam nga xamante ni moo ko jur ci jëmm parce que xalaqakum min nafsin waxida ñëpp yàlla da leen bind ci benn jëmm muy jëmm maam xawwa ñu ni yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma wala wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wa taqu llah allazi tasaaluun bihi wal arham inna allaha kaana aleykum raqiba maanaam sama borom jëmm jooju dong la amuloon génn ci la am lépp ci ay doomu aadama yonent bi ñëw bokk ci ñooñu nga xamante ni dañoo juddee ci kooku waaye moom moom mooma nga xamante ni ñëpp ci moom lañ jaare moo sadd aw way way yontu yàlla Muhammad ni ko lillaahi maa ngi yéemu walla lillaahi est-ce que maa yéemu ñu ni ko loo yéemu mu ni nuurun leer goo xamante ni yakunu llaha mudiahu abal wara tahiran fi tahiri chiami maa ngi yéemu leer gi nga xamante ni abal wara bàyyi mbindéef yépp nga xamante ni mooy maam Adama yàlla ne na ko yaa yilif ñëpp ndax ci yow la ñëpp jaare nee na leer gii te man yàllaa ngi taxaw man ak malaayka yi assa gouvernement suñu borom yàlla dinañ laaj naan leen an bi uuni bi asmaay haulaay in kuntum sadiqin yàlla naan leen inni jaa'ilun fil ard xalifa damaa bëgg a def ci kaw suuf sama kuutaay man yàlla wala yàlla taxaw ni damaa bëgg a def ci suuf sama kuutaay ñu ni ko yàlla ndax da nga fay teg koo xamante ni atajaalu koo xamante ni man yufsidu fiha wa yafsiku dimaa man yufsidu fiha wa yafsiku dimaa ñoo xamante ni dañuy yàq ci kaw suuf si ba pare di tuurante ay deret ci kaw suuf muy doomu aadama daal nii inni alamu ma la tax la taalamun xam naa loo leen xamul tey te malaayka yi ñu ngi laaj yàlla naan ko nit ñii ngay indi dañuy tuurante deret xam nga loolu mi ngi am waaye yàlla neen leen xam naa loo leen xamul parce que booba leer gi yonent yàlla gi tax yàlla bind leen ñoom malaaka yooyu ci jëmm ji la ko yàlla di génnee ci zahir nit ñëpp xam ko mu moom mu tudd Muhammad moo tax émission bi ñu doon def ñu tuddee ko Bichaaratuhu émission boobu du tey émission démb la borom in mooy moo ne bishaaratuhu mawjudatun qabla xalqihi yàlla dafa def yonent yàlla Muhammad mu nekk aji bégale la njëkk yàlla di ko amal waaye la njëkk it mbindeef yi di am la njëkk sama borom di ko amal wala la njëkk mbindeef yi di am yonent yàlla Muhammad mi ngi bégal jaami xam nga yéen ñi ñëpp ku ci nekk yaa ngi doon seetaan Yusufa film Yusufa bi yéen ñëpp ku ci nekk yéen a ko doon seetaan gis ngeen yàqu yanquba keroog ba laawi demee ca moom laawi gis ngeen keroog ba laawi jógee ci yuusufa lu ko yuusufa joxoon du mbubb mbubb ma la ko joxoon xale yi ñëpp gis ngeen lool yuusufa lu mu ko jox mbubb mbubb moom mbubb mbubb ma ko papam joxoon la ko la jox laaw yi ni ko boo demee jox ko sama papa na ko teg ci bët yi bu ko tegee ci bët yi jooy yi dina deñ te dina xool ah yanquba bi mu commencé di xencu yére bi yuusufa la commencé di bëgg di xam ni carrément Yuusufa ndekete kon faatuwul ndax xetam mi ngi may xeeñ te booba distance bi sori na Yanquba commencé di dalal xelam balaa wi di rëppatal fas wi di rëppatal fas wi di rëppatal fas wi ba ni rëpp ci kanamu Yanquba daa koy jox moom mu teg ko ci kanam bi ba mu ko joxee lu mu ko wax dafa waxtaan ak moom bégal ko ba pare nag dandi ko am nañu koo xamante ni dina ñëw muy dernier dernier prophète bu ñëwee Muhammad lay tudd daal ciy bégal laaw yi mi nga xamante ni dèjà moo indi mbubb mi ak yuusufa ma nga xamante ni ca moom la ñu war a delluwaat يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي واو واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي مصطفى يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي واو واو يا محمد يا حبيبي دفلني نمك محمد كنت بي مصطفى يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت من تبيبي واو يا محمد يا حبيبي آه يا محمد كن طبيبي مصطفى يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي دفلني يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي واو يا محمد كن يرجعني يا إمام الأنبياء مصطفى رم جامي بايو زينب رم جامي مصطفى رم جامي آه يا سراج الأولياء دملي فيك اعتذار يا محمد يا خبيبي مصطفى يا محمد كنت بيبي nga de yaa muhammad yaa habibi waaye nag ba doy nu ma xeeb ni ko ah, hani an lana minhu shafaati fi gadi ñun ñii ñépp am nañ ak ràmm keroog yowmal xiyaam ca ramm googu du ramm gu ramm la goo xamante ni ñu ñëpp ci ñun ñëpp mën a dugg ci biir ramm gu yonent yàlla muhammad la alayhi salaatu wassalaam moo tax bishaaratuhu boobu mu wax dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkkoon la bégal keroog maa ngi koy wax fii nee naa leen sëñ taal ñett ñii ñoo am tonton mbay damaa bëgg a kan moo ci gën a ragal ñetti ñi góor sëñ góor ñetti ñi kan moo ci gën a ragal kii dañ ñi ko gaynde gi dina fi ñëw ci dëkk bi maanaam canaba la dëkk ñu ne ko gaynde gi dina ñëw canaba mu tiit daal di faatu keneen ki ci des ñu ni ko gaynde gi ñëw na mu ngi ci dëkk bi te moom mi ngi ci dëkk bi ñu ni ko gaynde gi ñëw na mi ngi ci dëkk bi mu tiit daal di faatu keneen ki ci des ñu ni ko gaynde gi ñëwoon na démb ak ki démb waaye dem na démb ca ngoon maanaam gaynde gi dem na démb gaynde gi dellu na maanaam gaynde gi dellu na fa mu jóge woon te dootul ñëwaat moom mu tiit daal di faatu may laajte ñetti ñooñu kan moo ci gën a ragal ki nga xamante ni gaynde gi ñëw na ba dem kooku moo ci gën a ragal kooku mooy ñun ci yontu yàlla Muhammad yonent bi daa dafa am ñoo xamante ni dañoo jàng kii ñëw ci yonent yi te war koo tëj nan lay mel ñu bëgg ko lool te gisaguñu ko amut baa dégg bi daa am ñoo xam ni ko comme Yusufa ak maamam comme euh, comme comme comme Isa bi mu naan yaa bani Israil inni rasulillahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi ni leen nag wa mubasiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu Ahmad gis nga nee leen dama leen di bégal ci ab yonentu boo xamante ni dina ñëw ci sama ginnaaw bu ñëwee nag ismuhu Ahmad Ahmad lay tudd te mu ngi bégal waa bani Israil kon kooku mu ngi bégale te juddoo ko yaa ngi dégg wax beem Seydi Haaji Maalik ne xalaqa al axlaaqu wa baathu l anbiya li zuhurihi muqaddimatun faalam wala tanami nee na yonent bi cortège lañ ko defal mag sàll buy ñëw Thiénaba boo xoolee bu fekkee ne daa joxe rendez-vous quatre heures une dina am benn benn cortège bu njëkk dugg cortège boobu bu duggee day def visite xool fi mu war a toog yëpp ñu xool ba xam fi ñu ko war recevoir yu demee noonu ñu ni lii mooy protocole président ñu ñëw xool yi ñu war a xool yëpp daal di jokkoo ak ña wala sax ñu delluwaat beneen ñëwaat ay 3 heures ba 4 heures de demi nag président ci boppam war a ñëw kooku mooy yonent yàlla Muhammad maanaam bi mu waree ñëw yàlla dafa yebal yonent yëpp ñu jiitu ko nekkal ko nekk cortège am protocole yonent bi ca maam Adama yonent bu ñëw rek protocole nga protocole nga ci yonent yàlla Muhammad parce que yonent bu ñëw defal ko ko discours yonent bu ñëw defal nga ko discours yonent bi dimbali na la ci tawasul boo def yi moom boo demee ci yaa Seyda Sadat Mohamed léeg-léeg mu wooy ko jiitu ko si da leen na woy ñoom ñëpp ku ci nekk fa yonent bi jaar ak yow moo tax yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam ñu ni bishaaratuhu mawjudatun qabla xalqihi maanaam yàlla da koo def mu nekk kuy béggale li njëkk ak amam waaye li njëkk am ak mbindeef yi léegi nag ñee bëggoon ko te gisaguñ ko ñii nga xamante ni dañoo nekkoon ak moom ci biir ma makkatal mu karam bëgg ko ndax dañu leen ko wax ba pare yonent bi di jëf ñuy gis xoola koo xam ni dafa ñëw ci jàkka ji te yaa war a jiite jiite jàkka ji ab xale ñëw taxaw saw fi wala nit magum jëm ñëw taxaw ci jàkka ji saw ñu jégal ma ci kàddu bi ñu bëgg koo toroxal bëgg koo dóor yonent bi ni bàyyi leen ko wut leen ndox àllee mu ndox ñu àll ko ndox mu defar ko ni bàyyi leen ko xoola boobu jikku bu rafet mu ni ah kii de bëgg naa ko ndax melokaan yi mu mel te tuub naa dugg naa ci lislaam kooku xam nga ni kooku moom daa gis ci moom lu tax mu bëgg ko parce que moom yonent daa jëf ak ki nga xamante ne daa xeex ak yonent ba jekk ko yore jaaseem ni ko kan moo mën a dox sama diggante ak tay ma rey la yonent bi daan ni tudd yàlla daan ni ko allahu akbar rek mu tiit fettax paaka bi daw mu daal di jug moom daal di toog ci dënnam mu ne ko kan moo mën a dox sama diggante ak ma la mu ne ko xanaa yow yonent bi ni ko baal naa la moo tax yonent bi ci li ci ci li na ci borom xam-xam yi wax yonent bi neen kenn la musa rey ci loxo kenn kenn lañ wax ni moom la yonent bi mos a rey ci loxoom te kooku dafa juddoo ndoog yonent bi defa ndoog yonent bi lépp ba nekkee xale di fo wala yonent yonent bi ñu ko gëmul ñoo gën a xam maanaam ñi ko gëmul ñi ñi ñi àndul ak moom ci diine ji bokk ñoo ko gënoon a gëm ay waxam xoolal ki nga xam daa ñëw ba ci yonent bi mu ni ko déglu naa sa discours discours bu complet déglu naa ko discours bu leer nga nekk ku fasaa nekk koo xamante ni li ngay joxe dafa leer teyit yow lu mu wirti wóor mooy ku dëggu nga waaye man convaincre ma man gëwma la loolu la ko wax te man yow gëm naa ni man yow yaay ko dëggu loolu la wax yonent yàlla Muhammad yonent bi ànd ak moom ci tukki keroog maa lañ koy wax keroog bi ñu def julli gi fii ci tamxarit foofu du fi jaar yonent bi sallallahu alayhi ànd ak kii nga xamante ni dafa ñëw ni ko bañ nekkee xale ñuy fo ñoom ñaar yonent bi ni yow de maa rey góor di nga wax benn dañoo nekk ndaw ñoom ñaar yonent bi ne ko yow de mu jàpp wax booba xoolal bañ nekkee xale mu jàpp ko ñu dem xeex bi metti yonent bi xeexul de ñu jékki-jékki ba si ak moom mu bëgg a fan bi mu bëggee rey yonent bi sallallahu alayhi jël li nga xamante ni moom mooy ngànnaayam moom daat ko koy dóor bi mu ko ko dóoree mu def ci moom benn benn benn màndargaw gaañu gaañu rek mu départ daw commencé naan xatala nii Mouhamed xatala nii Mouhamed xatala nii Mouhamed Mouhamed rey na ma ñun ko yow Mouhamed nu mu lay rey yow lii la Mouhamed def nu mu lay rey mu ne Mouhamed rey na ma parce que bañ nekkee xale daf ma waxoon moo may rey te bu may rey ci xeex bi may rey ci kaw fasam lay ne ma nekk sama kaw fas comme nekk na ci kaw fasam ma nekk kaw fasam mu def ma lii lu mu tuuti tuuti gëm naa naan ci lay dee mm-hmm. ndax lu mu lu mu mës a wax bañ nekkee ndaw ba léegi lu mu mës a wax dëgg la mais moom mës a gëm yonent Yàlla mais boobu xolo xolo xolo xolo boobu gëm-gëm mu am ci yonent bi mu ni bañ nekkee ndaw ba léegi musuma gis képp ku mu xool bu nekk kii ñetti fana des ci moom sax man kooku ragalal naa ko maanaam Mouhamed mii musta wax lu amul ñoom al amin lañ ko tuddee sa turandoo ñoom al amin lañ ko doon woowee mu ni comme nag waxoon na ma ni ma dinaa la rey te bu ma lay rey ci sa kaw daaba laa lay rey bu ma nekkee sama kaw daaba bu ma tifli woon sax ma gëm ni dama ciy dee tëdd hôpital nag të dë baat boobu rek xatal ni Mouhamed xatal ni Mouhamed ba ni mu faatoo moo tax yéen yàlla Mouhamed moo doonoon al aminu ndaw ñi yéen ñi ñu ngi leen di dénk loolu dëggu leen doon ndaw teewut a dëggu nekk ndaw teewut a dëggu na ngeen dëggu bu leen ci kenn jële ah, yonent bi sallallahu xam naa ni wax ci moom duñ jeexal te heure bi mi ngi dem dëgg yàlla ah, li ñu mën a wax ci moom bari na maa ngi amoon yéene sax euh, bi ma waxee ci euh, Safiul Wara ndax euh, télévision bi dafa war a dem ci jumaa ja te ñun ñi ñëpp ku ci nekk sax bu ñu paree ci li ma mën a wax mooy ku ci am ak ak ak fierté mën nga àgg sa jumaa ja ndax sëriñ bi dafa joxe woon dafa joxe woon rendez-vous ci jumaa ji ci ndoorteel la ak njeexital ga te tey jii dinañ jeexal suñu hymne national comme ni ñu ko waxee hymne national lii la maam Ahmadou Ndak bi mu ñëwee xeex xeexam yépp kooku la dañoo war moom lañu waroon waxtaane tey jàmbaar diine jooju góor koo xamante ni da ngaa def sa jihaad ba mu mat romb sa dëkku bàyyi rus ngaa wax sax kii kilifa gii nga àndal nga xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla boole leen rus naa wax seexu ni ko fii mooy sama dëkku fii mooy sama dot mu mel ni daray àdduna wala boog mu mel ni daray xolam daa dellu siwaat fii walif jihaad ji mu jëm rus na ko wax lool mu ne ko ñaanalal ñi dëkk ñi nekk ñi tëdd fii nit ñu baax ñoo tëdd fii ñaanal leen góor bu doon man la wala rek commencé daan ko fii sama yaay fi tëdd fii sama baay fi tëdd ñaanal leen dèjà yow sa xel indiwaat nga ko ci démb waaye Seydil Mujahid bañ ko fekkee ca tool yaag lettre ba na ba na mu sëpp na mu sëppeeb al na mu sëppeeb te na mu sëppeeb al na mu sëppeeb ileeram ba ñëw ci kër gi jéggal ña muy jéggal yeew yi ña muy yeew dénkaane doom ji won dëkk bi ginnaaw ci bis boobu fanaanu fa xooloo góor koo xamante ni programme woon ni tey dëkk bi doo fanaan nekku sa programme woote bi yàllaa ñëw nga xam ne dëkk bi amatul fi wàll def ko ni dee da koo def ni dee Seydi Mujahid keroog la rey boppam lim bind ci xutbaam bi ni muutu qabla anta muutu dëkk kooku amul morom gis nga lim bind ci xutbaam bi ni ni muutu qabla anta rey leen seen bopp bala leen yàlla rey keroog noonu la def dégg nga de muutu qabla an tamuutu waaye mu teg ci wa baadiru bil amali xeet qabla an tusgalu na ngeen jëkkante daw ci jëf ju baax xoolal jëf jim jëf yàlla woote na mu geddum xëyam geddum njàngaleem geddu soxna geddu doom xoolal doom ju góor ni mel nga jël ko ni ko dénk naa la yàlla xaw ma dinaa la gisaat xaw ma duma la gisaat jéggal soxna yi ñu dem ndax xamul lu koy fekk ca la ca la wuti te du leen xaarloo daal di gàddaay di nag bu jant bi fenk bëgg bëgg naa mu fekk ko mu sori lool te bi muy xëy xëyewul woon programme bi jàppoon na ne tey ji mook njabootam ñooy fanaan mu geddu njabootam ngir woote bi yàlla te xamul dina dellu siwaat wala du dellu siwaat waaye en tout cas moom miraas na boppam ginnaaw ba dénkaane doomam Cheikh wuy ji Cheikh Amadou moo tax ñëw ci Cheikh Amadou li mu wut si woon faaw mu am ko parce que waxuma pas-pas bi mu woon Cheikh Amadou ak cër bi mu ko nuyoo mais pas-pas bi ko bi ko bi nga xamante ni moom la Seexu Amadu yëg ci ni kii moom la moom la tëjee këram pas-pas boobu ku ko indi ci doomu aadama loo fa fekk yaa ko moom xoola Seexu Amadu ñeent fukki doom ku ci dul góor ku ci dul jigéen ci jihaat nga faatoo kooku ndax mën naa yem ak ñii nit ñi nga xamante ni léeg-léeg da ngay bind ñaari téere ñetti téere sax commencé di di dóor say dàll ci mag ñi léeg-léeg day am. loolu ñooñu duñ ñii ñooñu duñ ñun ñeen fukki doom ak doom ni mel ñeent fukki doom ñëpp nga am leen roof leen ci biir toolu jihaat ba ñu des ci te bu doon suñ suñ jamono ji dañ leen di rawale ji Espagne ak fu ne ngir wut loo jëloon li ñu am te ñun ñii looloo ne ci ñun ñun ñii loolu moo ne ci ñun mais ñoom nag ñoom yàlla dimbali na leen ñoom yàlla da leen dimbali xoolal loolu moo tax mag ñooñu yàlla nañu leen yàlla fayal tey lii yëpp ñoom la ñu xeex ba xeex bi jeex si xoolal ñu xeex ba xeex bi jeex ñu am liberté yàlla defal leen tawféex liñ doon laaj yàlla muy dëkk bu sell dëkk bu naat dëkk bu saf yàlla dëkk bu am continuité ci diine yàlla tànnal leen yàlla jox leen ko ñu dem ba toog toogaay bi jekk ñu ni duñu bind tànn nañ Ibnu Muhayib bii muy suñu téere kon bii téere moom nuñ ci war a def ñun <laughs> xool Paa yaa ngi seet loolu Ibnu Muhayib bi foofu rek nga ko mën a delloo xam ci ram bu mën a li li ci borom Ibnu Muhayib woy de nga xamante ni woy yi moom boo koy seetantal dalay yóbbu ci beneen xaal waaye ñoom fi ñu jaar yépp pare mënoon a bind rencontre seen histoire fi ñu jaar ñu bind ko woy ko ñu pare daal ni waa ji li mu woy moom lañuy jël moom lañuy ñuy gàmmoo góor kon kii ci la lépp nekk yàlla nañu yàlla gën koo bëgg loo luñ ko jàng doyul man de maa ngi ci njàng bi di ko jàng yàlla naa ko man di am mbégte bu wér a wér ci suñu wayjur wii toog suñu wayjur la suñu nijaay la ndax moom ak suñu papa la gàmm gu jot cër bi mu am cana ñu ñun ñii dëkk fi sax amuñu ko fi wolof yi dañoo wax ni ku des dese sama papa da daan wax naan ab yan bu wàccee ci ci bopp ci mbagg la jëm moom li sama maam ma njaay mbeng yore woon wàcc na wàcc ca boppam ya tege na ci mbaggam te yanu na ko lu waral lool mooy alu tax mu wax lool mooy canaba du tudd mukk loo xamante nii kenoy canaba yi la jëlu ko moom te dëkkul ci biir dëkk bi dakaar la yeewoo waaye lépp loo xamante ni lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy cërale canaba la di ko jox mu xaddam yi nga xamante ni dañoo nekk ci biti te te te tey tey dundal kër gi dañ ko ciy boole moo xam cooti la moo xam eh, kajoor la moo xam canaba sekk gii la moo xam yeneen dëkk yi fu mu ci mën di doon ci canaba yi léegi léeg sax nga dem ci dëkk yooyu cooti wala kajoor wala fenn yow mu jógee canaba moom mu njëkk la fa te boo te booy dem fa nga koy bàyyi ndax dund gi mu dund canaba li ko papam bàyyiloon téye na ko wolof nag li ma wax léegi moo ci nekk dani ku des dese dese gi mu dese canaba tax jëlee ko ci waajuram loolu téye na ko kon dañ koy ñaanal yàlla ak wér yal yàlla yàggal taxawaay bi yàlla sàmm te aar njaboot gi nga xamante ne ay rakk lañ ak di ak di doom ak di jarbaat yal na yàlla may la ndam ci ñoom ndax boo gis boo sañoon ñoom ñëpp ku ci nekk li sama maam bëggoon donc ci la ñuy nekk te bu ñun ñëpp boo sañoon ku ci nekk di nga ñëw ba canaba gi sukk jël tarixa ndax seen lépp boo sañoon mu nekk canaba kon yal na yàlla sàmm te aar tër bi mu am canaba boo demee Touba fekk ko fa foofu loolu la fa am parce que waajur mu jigéen léppam Touba la woon te boo demee foofu da nga ko fay da ko da ngay fekk foofu cër boobu noonu la ko fa amee ci kilifa yi te loolu rek moo am solo parce que sama maam Mandiaye Mbengue moo daan wax naan nit ki fu mu jébbalu loolu ci maandu la bokk nit ki képp ku ci ku mu jébbalu jébbalu ni kii mooy sama sëriñ bañuma lool na nekk ab jullit rek waaye na nga fexe ba sëriñ boobu na la xàmmee na la ràññee ab sëriñ bu la ràññeewul mën naa am mu war a def ci yow lu mu deful ci yow parce que ab sëriñ bu la ràññeewul du la mën a tere du la mën a digal sama maama Njaay Mbeng loolu la leen wax fu waay man di bokk wala nga mën ko en tout cas man loolu duma ko gàntu waaye na la sëriñ ba ràññee loolu nag ñoom ñëpp ko nekk boo xoolee boo xoolee tonton Mass bi nga xam ne carrément bu demee Touba ak cëram am na ko moom mi noonu ak ñi ci des ñëpp alakul xaal kon yàlla na yàlla sàmm te aar amul ñu kontaan nañ ak sëñ Talla Mouhamed Mboub nag moom mooy animé jàkk ji te lim fi mu toll ci jàkk ji mënu fee ñàkk keroog dafay ñëw fi yëkkati fi laa ilaha illallah boo xam ne jàkk ji da doon riir yàlla na yàlla sàmm ko te ko ma jeexalee samay kàddu nag ci dëkkandoo yi nga xamante ni bis bu nekk ñuy yuuxu ibnu mooy bi rek ci jàkk ji di leen tànqal ñu ngi leen di jéggalu ñi nga xamante ni ñoo ñoo muur koñ bi bis bu nekk ñu nekk ci jàkka ji di yuuxu Ibnoul Mouheyibe bi di mën naa am sax am am ñoo xam ne wéruñu ñu ngi leen koy jéggal ndax àq dafa sew waaye di jaajëfal ñi nga xam ne dañ doon jël seeni teraanga saa ñu commencé Ibnoul Mouheyibe bi ñu defar kafe wala ñu defar ay tàngal indi ko xoolal gis nga boolu beñe bi waa Njóobeen ñoo ko defar léegi indi ko fi ñaari xale yu jigéen ñoo ñëw léegi indi ko fi an te te def nañ ko fi ay yooni yoon mu ànd ak ay termoosi kafe ñi dëkk ci koñ bi bu ma limee damay damay damay desal waaye bis bu nekk seeni teraanga ci jàkk ji jàkk ji musu ñoo musu ñoo musu ñoo def indi mayëb co noor dañuy dañuy dañuy naan kafe dañuy nag ku nekk day am mbiskit biscuit dañuy am tàngal ak tàngal moo xam ne neen ak tàngal kon loolu mbégte la yàlla nañ ki yà ñu mbokk yi yéen ñëpp ñaan leen déwén ñu ñëpp ñu fekkewaat ko ak jàmm xale yéen ñëpp ñaan leen déwén ñu fekk waat ko jàmm su ko defee dañuy jox euh, Seydina Mohamed bu su ko defee moom mu daal di joxe ay kàddoom ñu daal di ñaan waaw su dee kàddu yi mën ngaa joxwaale joxwaale kii ñaan waaw ñun moom xam nee na laay laay laa laay laay laay laay laa laa laay laay laa laa leen jërëjëfe jaara maam Seex Janaba laa ilaaha jërëjëf jaara maam Seex Janaba laa ilaaha من يا لم لا إله إلا jaara am se canaba la ilaha وتوكل سنة لا إله إلا bi yaa neex a way bi hada di waxluf ni ujaddidu fi hada alxarni yonen bi moom donc lan yaakaar yawmal xiyaam mu jàll ñoo laka yaata ay ko sopp yonent bi defal ni sa ñaari loxo waay bila mira yonen bi jara yaakaar yomal xiyaam mu jàll Sëriñ Omar ba nee na fadaltakum yaa ma gënal ala abi sama baay yow yonent bi wa waalidaati ak sama yaay yonen imaam sa baay nee na wa arwaaxi وأنفاسي وأيادي آمين الله ينن بي moom dong lan yaakaar yowmal xiyaam mu jàll ñoo wasi xayaat ya raxdul waaye ku sopp yonent bi defal nii waay min xubikuma mutafaani ah ijanaa yonen bi ah kon kay fa rabbana fil ardi wa samaa'i yonen bi aminna ala tasdiqina bi sifaa'ihi mu ni wa inna lidul aswaaxi يحيى بدائه ينبي يسوق على العيث دون لقائه ينن إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله kon sëñ Mouhamed nga def ñaan yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di jullit yëpp eh, di jiital ci nuyoo bi eh, Baye Assane Seck di xalif général Thiénaba fa tabarakallah di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di siyaar waa jàkk ji yëpp di nuyu suñu papa Baye Mbaye Mbeng ma la topp waaye di nuyu ñi nga xamante ñoo nekk ci jàkk ji ñëpp ñoom Serigne Góor ak Serigne Góor Mbuub sëñ Góora Ndiaye fa tabarakallahu imaam Souleymane ak ñoom Mouhamed Mahdi ak ñi ngeen ko bokkal yépp macha allah ah, xanaa ji kontaan rek fa tabarakallahu di ñaan yàlla yàlla na yàlla def ñu fekke ko ay déwén yu bare bari ci barki yonente bi sallallahu alayhi wasallam ah kaddu gi nag kàddu kilifa kër gi la muy suñu papa Ousseynou Ñing fa ndax yaram bi moo xaw a tawat fi la nekkoon sànq mu jóg léegi waaye Euh, mu am ay kàddu yoo xamante da koy yóbbante ci cant ak ngërëm ak ñaan euh, fa tabaarakallaahu ak ci kontante ci ñi nga xamante ni bi weer bi feeñee ba léegi yéen a ngi koy taxawoo Ibnul Mouhib di ko taxaw jàkk ji euh, chaque jour di julli ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di dundal guddi yi ni nga xamante ni noonu ngeen koy defee yal na yàlla nangu ko ba nangu ko sax nu rawee noonu ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu comme Souleymane ni mu ko waxee sànq rek ndax moom sax gërëm na ñëpp kon foofu mu teg ay kàddoom ci ngërëm ci képp koo xamante ni mu ngi teewee jàkk ji rek foofu doy na fa tabarakallahu xanaa di ko gën a feddali comme ni mu ko waxee rek ndax yéen ñëpp gis nañ seen taxawaay te loolu nag li muy firndeel mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi waaw bëgg yonent bi rek mooy raw mooy rawukaay bi maanaam yonent bi ku ko bëgg rek fa tabarakallah say mbir baax na ci biir baax na ci biti kon euh, yàlla na yàlla def mu nekk seen muur barki yonent bi sallallahu alayhi euh, xanaa di ko gërëm moom Souleymane parce que nit mënul sant boppam waaye nag fa tabarakallahu euh, lii rafet na beneen bi ci des mooy raar na parce que nekk ndaw yàlla dimbali la nga mën a tàggat ay ndaw ñu bëri waaye yàlla dimbale la nga mën a taxaw yu bëri ci wàllu diine loolu dafa jafe dafa raar ci jamono bi ñu toll nii képp ku ko yàlla defar nag war nga cee sant yàlla bu baax waaye moom jàmbaar la ndax euh, fa tabarakallahu lii euh, du ci weer bi bi mu commencé nii rek ci la ci la ci la njëkke moom chaque jour li may faral di wax naan cene bari bëri na ñoo xamante ne war nañ leen a la waaye moom ci la bokk ndax koo xamante ni ci jàngal diine nga nekk moo xam ci tarixa bi la moo xam fiq la moo xam lu mën a doon nga xam tey dëkk bi nga nekk maanaam lu bëree bëri yaa ngi ko fay jariñ ñooñu war nañ leen di ràññeet le waaw moom yàlla mboole na ko ci ñooñu muy suñu rakk nag topp ci ñun di ku baax koo xamante ni ku joxe cër la fa tabarakallah yëgul boppam ci li ko yàlla defal boroom xam-xam la nag waaw bu ko neexul loolu mën na ci yëg boppam mais tey fu ñu gisee ak fu ñu nekk day wàcc jox ñu cër bu mag bi yooyu yëpp fa tabaarakallaahu beneen bi ci des mooy même sax cër bu baay waaw loolu nag euh, ci ab yar la bokk euh, ci diine la bokk kon man du may fukki guddi yu njëkk yi rek ndax ku nekk gis na ni ñu dundalee fukki guddi yu indi may bi waaye moom ci loolu ci des ci la sax jàkka ji firnde la ci waaw jàkka ji nga xam tey moom la fi taxawal euh, waa koñ bi yëpp di fi jullisee waxtu yëpp fa tabaarakallaahu loolu rek bu ko yàlla fayee kenn xamul loolu nu mu toll waaw ñi ngi koy ñaanal nag fu ñu toll dañ koy ñaanal nag li ci jiitu mooy yàlla na yàlla lafal ko cet musal ko ci lépp loo xamante ni luy musiba la ak bala ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla koo dëgëral yokk ay xéwalam waaye nag euh, Pape tamit mi kontaan ci taxawaay bi nga xamante ni ci la taxawee ak yéen ñëpp Mouhamed Mahdi fa tabarakallahu yow it yàlla na yàlla fay la dëgg yàlla boobu léegi yaa ngi koy ànd ak ci jàng yëpp sëñ góor a soppee Cheikh Tidiane wa tabarkallah ni ma ko waxoon sànq ci yeneen bi rek sopp Cheikh moom mooy soppi yeneen bi rek <laughs> waaw wa tabarkallah benn la kon yàlla na yàlla fay la sëñ góor a Ndiaye fa tabarkallah moom suñu mag la moom tamit eh, wax dëgg yàlla chaque jour mu ñëw ci jàkk ci ñoom Serigne Mor géey ñëpp rek ñu leen di di ñaanal suñu pap yi yàlla na yàlla gën a guddal faram sama yaay léegi la génn ñoom tamit chaque jour fii la ñuy ñëw ci jàkk ji di ko ànd ak ñoom sëñ Souleymane di taxawal guddi yi ñoom it yal na yàlla fay leen ci barke yonent bi di ñaanal waa réseau bi yëpp di ñaanal suñu wayjur nag euh, muy sëñ na yàlla euh, dolli yërmandeem barke yonent bi yàlla yokk leeram fa tabarakallah ndax moom lii lépp la fa tabarakallah bu fekkoon ne dafa am ak njaboot seetaan leen yaru leen ci diine kon lii du am daanaka képp koo xam jur na la rek yar na la ci diine yal yàlla fay ko loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi kon daal loolu mooy li nga xamante ne moom mooy kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa bëgg Mouhamed ku fi nekk rek te man ñaan gii may wax nga def ko ñu yéene ko ñaanal ko imam ku fi man ku fi nekk te man ñaan gi may wax nga def ko fatiha salaatul fatih fallaxi salaatul fatih naasi salaatul fatih ñu ñaanal ko moom mu àgg fa mu jëm imaam yàlla na nga àgg nan leen jàng ñaan bi soog a def rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin arrahmaani rahim alfatihi lima uxliqa maliki yawmi ddiini walxaatimi lima sabaqa iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciinu naasiri alxaq bilxaqi ihdina siraat almustaqimi walhaadi ila siraatika almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم وعلى آله حق قدره غير المعذوب عليهم ولا الضالين ومقدار العظيم آمين اللهم يا من أزهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يختك السترة ويا عظيم القفي ويا غزل التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمتك ويا سميع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل الحسرات ويا مبتدئا بنعم قبل استقائها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رحبتي أسألك أن لا تساويها قلقتنا ببلاهدنا ولا بعذابنا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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لبيك اللهم لبيك AIVLT voyage ku ne dégg na AIVLT voyage voyager leen si confort dans la quiétude nga bëgg a dem umra ji dañu lay taxawu gunge la nga bëgg a dem Maroc ñu taxawu la ba pare ci njàppandaluk marocain bu loisir du tourisme culturel bi El Hadji Niassé ñi ngi jiite dina leen yombalal seeni déplacement si biir Maroc ci ay auto yu yomb bien climatisé ngeen dem Fès dem raba Casablanca ak Marrakech en Europe Europe naka noonu nga bëgg a dem Dubaï mbaa fépp foo bëgg a dem si biti réew contactel AIVLT voyage AIVLT voyage yamul foofu dina def ay colonie de vacances des voyages de groupe ak yeneen ak yeneen l'agence internationale de vacances de loisirs du tourisme dirigée par El Hadji Ndiassé Gningue dina leen dalal ci ay hôtel VIP 5 étoiles location de voiture tekki di càmmonteeg mesure barrières yi jokkal ak waa AIVLT voyage ci 77 645 54 02 ci 76 639